أعوذ بالله جميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدم صالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ginnaaw ba sante borom subhanahu wa taala julli sang-sang mi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam station ñu ngi ko defee eh, seen eh, Elvision Média léegi nii li nga xamante ni programme religieux yi nga xamante mi ngi am fii sunu jamono ji ñu toll ni eh, ba léegi ñu ngi ci waajtaayu gàmmu gi waajtaay gàmm boo leen ko déggee am na lu am avant gàmm gi muy burdu burdu bokk ci li nga xamante ne su maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu moo ko fi ñu koy gàttandoo juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey pour euh, ci benn burdu populaire boo xamante ne benn daara moo ko organisé ay euh, sidqu wala ixlaas ànd ak waa muchachi diine ak waa muchachi diine fa seene ànd xale yi lépp ci màggal guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waajtaay bi na nee nañ gan boo ko amee danga koy dafa jël burdu di bind imam Bouchayri mu jël ko di ko li nga xamante ni mooy judd yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na imam Bouchayri yitteelu ko waaye la imam Bouchayri di wax ci bind ba moo ko yitteel mu wax ci wax ju am solo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ko xam Seydi Hadji Malick xam nga ni bind lu ëpp lu ëpp lu imam di bind ci yonent bi waaye dafa choisir bind imam Bouchayri pour uh, ànd a moom rek cofeel nga xamante ni bu Bouchayri am na ko ci tibi bi Seydi Hadji Malick delloo njukkal imam Bouchayri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 Amen.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 عثمان ذي النورين كمالا واجد لعثمان ذي النورين من كمولا واجد لعثمان ذي النورين من كميلا له المحاسن في دارين والثغر بكل عوف قبل عاد وأبوه بيدة وزبير سادة قرار مولاي صل لوسالم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم به العيار مولاي صل لوثاق الذي ينعمنا عنا محمدا المختار بالخدم وصلي يا إلهي واجزي أبدا عنا محمدا المختار بالخدم الفاتحة الصلاة الفاتحين ba léegi pareeguñ dañuy ñëw am ku ñu waxtaanal léegi rabbi allah rabi di benn oustaz bokk ñi nga xamante ñoo organisé buddu populaire bi incha rabbi rabi ñoom lañ fas yéene waxtaanal salaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu ngi lay tur bi naka man oustaz Birame sek lañ may wax oustaz Birame Seck ban ban mouvement wala ban kii ñu organisé lii waaw li daayira asidu sidq wal Ixlaas nekk nekk fii ci koñ bi ñoom ñoo ko organisé ànd ci ak daayira al mustasidin wal mustasidate ñoom ñoo organisé tey journée bi ngir gàmmu gi nga xam ne dañuy waajal guddi yonent bi salallaahu alayhi wa di sunu participation ci jàppale ci seex sunu sëriñ Seex Seydi Hadji Malick nga xam ni moom moo woote gàmmu fii ci Sénégal tey nga xam ni dafa wax ne ala mawlidu wa mawliduhu bii sharafun wa xiirun papi taandimi indiaw sujuni looloo waral ñu def burdu bii tey pour suñu participation pour jàppale ko ci ci li mu liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam la moo tax ngeen def ko ci moment bi la moo tax ngeen def waaw xam nga yonent bi salallaahu alayhi weer bii la juddu léegi nag comme Cheikh Seydi Hadji Malick dafa baaxoo woon bu weer wi teroo rek premier jour ñu commencé di def burdu fukki fan bu ñu paree noppalu benn fan ci fukki fan ak ñaareel bi ñu def gàmmu gi ñu préféré xool moment boo xam ni burdu yaa ngi daw comme ñun mënuñu dem Tiwaawan te comme ci bëgg nañu liggéeyal Cheikh Seydi Hadji Malick bëgg nañu liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ni nañ ko def ci période bi loolu moo waral ñu def ko ci période bi nii. Euh, lan moo tax ngeen def ko burdu populaire pas seen daayira kese ngeen def waa koñ waaw xam nga jamono day dox te euh, Seydi Hadji Malick yàlla daf ko dogal defoon mu dégg jamono. te nit buy dox li Serigne Cheikh di wax ni da ngay nuru sa jamono te comme jamono dem na ba toll foo xam ni ku ci nekk bëgg na tarixa bi bu ko dund fi nga nekk comme woon xaw na sori ba kenn mënta dem burdu bi ba foofu ñu ni pour pourquoi pas ñu dajaloo ci koñ bi bii moo mooy suñu quatrième édition je pense ñu ni nañ koy def woo mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi yëpp dajale leen ñu def burdu te xam nga burdu dafa doon lu am solo ndax Busayri moo ko wax te Busayri euh, borom xam la woon nitu yàlla la woon bu mag Cheikh Seydi Hadji Malick nag Euh, doon koo xam ni nee na du Busayri moo ko yitteel waaye ki Busayri di way moo ko yitteel moo tax euh, te bu euh, burdu lépp salaatu ala nabi la ak tagg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam te yonent bi moo wax ni képp koo xam ne julli nga ci man benn mu julli ci yow fukk boo jullee ci man fukk mu julli ci yow téeméer te boo jullee ci man téeméer yàlla jëw julli ci yow junni te ku julli ci man junni bu ñuy dugg àjjana samay mbagg sama ak sama mbagg ñooy looloo waral ñu woo mbokk taalibe yëpp dajale leen fii ndax ngir yi woowu pour yaatal ñun ñëpp ñu bokk ko ànd ak euh, suñu sëriñ Cheikh Seydi Hadji Malick pour jàppale ko ci mission bi. ñu lay sant di la gërëm. waaw jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf barakallah. Aïcha mi ngi noonu sang boobu lañ doon waxtaan di oustaz bokk ci nga xamante ni ñoo organisé euh, nga xamante ni mooy buddu populaire bi nga xamante ni moom la moom lay am fii ci euh, géej géej waaye ñaali boulangerie